mais ñëpp xam nañ ne président Ousmane Sonko li Macky Sall li ko Macky Sall li ko nit ñi dugal ci jarab mooy gëmm moom la wane ci dossier dafa gëmm jàpp président Ousmane Sonko mais li may faral di wax rek ñun Ousmane Sonko waruñoo gën a gore ndax mboolem lu mu war lu woon ak ñun def na ko jaay na alalam ngir Sénégal jaay na deretam ngir Sénégal kon tey jii buñ ko tëjee mais koy def mandat de dépôt Sénégal yi ñoo war a taxaw ba empêché loolu ba loolu du am ndax 2021 buñ fàttali ne yoon woo leen jëloon pour def ko mandat dañoo ko huit jours garda bi Sénégal yi ñu ngi taxaw ne loolu du am moo tax mu rëccaat kon ba léegi ñun ñu ngi compté wu peuple Sénégal boobu ne bu ñu doon topp Ousmane Sonko dëgg dégg nga jóg di ko défendre ko élan nga jóg mu jaral la nang kon yi nga xam ne ñoo taxaw pour défendre Ousmane Sonko dëgg moo leen ñor lii day war a ne amul benn Sénégal bu mucc te ku Macky Sall bu la jàpp man la la jàpp tëj la ci kaw ay sos ay caaxaan kon loolu Sénégal ñun ñoo ko war a bu jàppee Ousmane Sonko tudd même bu tuddoon Moussa Ba tudd tey war nañoo jóg trop pour loolu du am ndax bu réussiree yi ñëw ne réew mi yëpp moo a jëmbat mooy jàpp danga patriote yi bu ñu ñàkk yaakaar tey jii ñu war a gën a mën a ko danga mën ay góor laa soxla ñoo xamante ni duñ xonk li bët duñ jooy nañ ñu taxaw takku dëgër taxaw ne président Macky Sall li mu bëgg pour mu am ko askanu Sénégal lay neex ndax Sénégal yi ñoo ko ëpp doole def faire face lii mu génn nii kon jàpp euh, pour def euh, honorable est-ce que yéen ngi euh, gëm projet PASTEF ba tey parti la goo xamante ne am ñuy laam-laame ne sax xëy na Euh, mun nañ ko fee jële ba dootul amati euh, ci ci euh, paysage politique wu Sénégal ndax loolu tamit yéen a ci bàyyi xel. ah Abdoulaye xam nga ñun loo ñu loo loo contre contre parce que duñ ko nangul benn mbir. Hmm. mooy seen parti jàpp nañ moom plus de sept cent personnes muy continuer di réer. ndax parce que du alalu Ousmane hmm. alal ji muy jox nit ñi pour consacrer leen. discours la am discours boobu ñu ko doon rêvé ñu éliminé ci ay candidats yu mel ne moom ku ci mel moom lu jot ci du ko léegi. ku ci mel ne Cheikh Abdou tudd ngeen ko léegi ñun jàpp ne loolu li ñu nettali ci moom buñu fekkoon seen jamono dañ leen def indi discours bu mel loolu ci adhéré wu ci ndax muy man muy sama junni moom mosuñoo xalaate bis bi ñu def politique li ñu tax ñu bëgg ci benn parti politique dañ gisee président Ousmane Sonko indi discours bu mel bi Mamadou ñu ne buñ fekkoon Mamadou Dia moo tax ñu taxaw ci ginnaaw Ousmane Sonko te jàpp naa ne Sénégal yi tey jii li ngeen dégg bu wàcce nit ñi nit ñi taxawuñu nekkatuñu naan te bala ñoo am jàmm dem kan ak Macky Sall am def ay problème lañ teg Ousmane Sonko mais loolu jàllee askanu Sénégal la neex askanu hmm. euh, naa ne jombul assemblée nationale yaa nga ca biir wala génn nga. non non man jotuma ma génn ah, jotoo dem euh, bokk na ci tamit euh, ci xibaar bu la mun a jox mooy Toussaint Manga ñu ngi for ci xibaar ne. Eh, yóbbu nañ ko garde à ci jamono ji waaw bu leen neexee dañ jàpp ñëpp ndax man mii di wax ak yow démb toog naa ba vers trois heures et quarante hmm. ñu ñëw sama kër ak kon fa boo ne diñu kenn xamul toll te xam nañ Touba seen moo taxaa def def politique tey jii bu ñu ñëwoon bi teg fa ay xale ñu résister ñu ne bu ko defee Touba hmm. nekk man xam ne ne man ñëpp moo sama kër sama kër waajur laa nekk muy kilifa pouvoir ñëpp respecté ko kon mënuñoo dugg këram ñëw dem ci seen benn ngañ jambot rek te ñoom wóor na wóor yàlla ci ñu seen nekko foofu intimité njaboot yu mel noonu mais dañu xam ne dañuy teg paga ci du jàll te pare dañ def faire face parce que Ousmane Sonko du ñu gën a encore une fois li lépp Sénégalais yi ñoo ko def yi dinañ ko protéger ba fee ko Macky Sall bëgg ko dugg allah rek jërëjëf waaw beneen euh, info tamit mooy Pape Alé Niang moom jamono ji tamit déféré maanaam dañu koy présenté ki nga xam ne moom mooy àttekat bi. ko donc nag affaire yi emballé wu na Moustapha. su su fekkee ne dans cette affaire là war nañ cee am lu ñu métti. lu mm-hmm. taskatu xibaar. Mm-hmm. mooy le sor réservé à Pape Alé Niang. oui euh, parce que man dama dama jàpp simplement que ni euh, Pape Alé mënuma comprendre. lan moo war a tax ñu teg ko loxo di ko poursuivre pour appel à l' insurrection. Mm-hmm. Euh, jéem naa xoolaat vidéo yi mu yi mu def ces derniers temps yëpp. j'ai vu même boo xam ne dafa doon insister sur le fait que sénégalais yi dañu war a dal. di calmer nit ñi exactement sénégalais waruñu waruñu nangu politiciens yi di ñu jaxase. Mm. ba ñuy ba ñuy jàppante te te suñu biir te xam naa dinañ occasion euh, revenir ci euh, parce que euh, la libération de de Pape Alé wala boog la liberté de Pape Alé taskati xibaar yëpp la war a engagé et sans exception man loolu laa gëm. Mm. bokk na ci Moustapha tey ji yaa ko doon tudd léegi.